acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk nag bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak bu baax nag comme ni ma ko faral di su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñu yaatal ci xam-xam bu baax a baax comme ni ma koy def fas yéene doxantu ci gox yi fasanti ko yi tey nag dama xaw a génn Dakar bu baax ñëw dëkk buñ naan Tambacounda. fas yéene dalal benn euh, ndaanaan di kilifa fas yéene ñu waxtaan ci xam-xam yaatal ci kooku la ñuy tuddee Chérif euh, Abdoul Sow te nag nee naa leen ku déglu di nga dég xam-xam waaye ku déglu tey nga dégg fi révélation am solo ndax li des ci mën naa ne élection yi bëriwut te fi mu ne nii bëgg nañoo xam euh, kan mooy jiite nam ma doon cinquième président du Sénégal donte am nañ 19 candidats. li may def nag laata may def dara di yaatal damay bàyyi Chérif Abdoul Sow mu nuyoog mbokk askan mi bisimilah Chérif. asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu bisimillahi bisimillahi bisimillah ñëw ngeen ci kër uh, taalibe ñëw ngeen ci kër bi ngeen war a ñëw nga ti da ngeen génn nga wone xam-xam ku ñëw woone xam-xam kooku da koy génn naan bisimillah nga ti li ngeen lu yëkkati lu baax la kon yàlla na la yàlla wéral cër bi yàlla na leen yàlla aar yàlla na leen yàlla sàmm jërëjëf euh, Chérif Abdoul Sow jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi ciy kontaan bu baax waaye ku ñëw fii xam ne am na lu fi nekk ndax euh, ci ñi nga xam ne dañuy jàng ka jàngale yor seen donge daara yi waaye itam euh, di gën a góorlu ci nga xam ne am nañ ci ñoom yaakaar aca damay ñëw nag ci diggante ñaan paj am na loo xam ne falaa namoon ñu tàmbalee ndax dangay ngay gis féewaloo ci famille yi te dañu bëgg ñu boole leen ba ñu mel ni mbrok Sow nob bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def Chérif abdul moom laa bëgg nga dellusiwaat asalaamaaleykum ci wàllum nob bi loolu boole ñaari doomu aadama loolu ñun dañu koy yee xay fas nga jënd sa fas fu sori fas bi mënatul nekk ci kër gi xam nga gis na da jënd fas wala nga jënd nag wala nga jënd jur du nangoo toog ñun bu ñu la ko noobalee du génn kër gi gis ci kër gi rek lay toog noob yemul ci doomu aadama noob lépp lañu war a mun a noob ci diggante góor ak jigéen ci nit yi nga xam te ne farata du ma liggéey ci caaxaan su ma defee nobbi boog nit ñi ma boole seen rawaxaan dee moo leen mun a tàggalu dee kese moo leen mun a tàggalu ci àddina mm-hmm. dara leneen munu leen tàggaloo balaa ma koy def nag mm-hmm. nit ki damay xam da nga fas yéene sëy ak nit ki nekkul caakaan mm-hmm. ngati bu ma ko defee fi ma toog di la ko liggéeyal balaa ma fay jóge seet bi dina nangu li ma lay noobal fi ma toog di noob mhm. balaa ma fay juge nit ki dina la woo téléphone wala mu ñëw mu jublu ci yow dama la koy liggéeyal fu ma toog balaa ma fay jóge boo ma ko waxee mhm. fi ma toog balaa ma fay jóge dama koy liggéey nga gis jërëjëf aja ku xam sama mbokki xalpulaar yi përi nga xam ne wàllum noob ñu la ci wax seeboo nga takk ko téere ndax suñu borom da leen cee may lii di xam-xam bu yaatu macha allah jërëjëf aja dinaa ñëw ci ubbeeku ndax ñu bëri dañuy jàmbat seen mbir lu ñu dugg dee dëgër sangatuñu fu nekk waaye xam naa ko ci jëflanteeg Chérif Abdoul Sow su la sangatee rek di nga xam ne am na càngat buñ la defal bu am solo. waaw ci wàllum uh, ubbeeku mm. doomu aadama mm-hmm. dañuy dugg ci sa rawaxaan ñu kool pour mm-hmm. ñu xam sa rawaxaan lan lañu ko mun a neexale mm-hmm. ba moom mun a jël alal bi bàyyi ko mu ñëw ci sa biddéew nga ti nit rawaxaanam dafa am ay bis yi nga ko mun a ñaan dafa am ay bis yi nga mun a jot ci moom dafa am ay bis yu muy ñëw dafa am ay bis yi nga xamante ne day dem bis yooyu du nangu dafa am bis yi nga xam ne mhm. day kontaan dafa am bis yi nga xamante ne dafay mer moo waral rawaxaan bi foog nga xam bisam mhm. nga doog a jaar ci rawaxaan bi nga mun a dugg ci biddéew nit ki mun ko liggéeyal alal wuy si ko mhm. alal wàcc ci ah. biddéewam loolu noonu dañu koy liggéey bu nit ki fépp foo jëm alal muy jublu ci yow nit ñi boo juble ci ñoom ñoom ñoo lay yéene di la jox ay buntu am am Oh. nit yi bu ñu la gisee nit dina la wax kaay ma liggéey ak mm-hmm. bëgg naa liggéey yow bëgg naa yëkkati suma alal bi ma jox la nga dimbali ma ma liggéey lii ak nit ñi ñoo lay yéene nekkul yow yaay topp ci nit ñi déedéet nit ñi ñooy topp ci yow. dina oh. yéene seen alal. loolu moom moo nekk ubbeeku nit boo ubbeeku. Mm-hmm. nit ñi ñoo lay yéene seen alal. Mm-hmm. jërëjëf euh, Cherif Abdoul Sow jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nee naa leen du doon ku naqaree jot ndax numéro bi moo affiché noonu suufu barre d'écran bi leer nañ képp ko ci woo rek dina jëflanteeg yow ba soxla sa xol sedd guy. acca dañuy des ba léegi wéel jàll ci beneen ponk damay ñëw ci sama mbokk jigéen ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe am lii di borom kër te xam naa <laughs> ku ci jëflanteeg euh, Cherif Abdoul Sow xam naa sa kon sa xol dina sedd guy ñu bëgg am borom kër mu jafe leen. nit ci wàllum am boroom kër suñ la jubloo ci ñu lay ci liggéeyal su yàlla defee ma xool ba ma xam ne ne mun naa la liggéeyal dama lay liggéeyal ba nga am boroom kër yow ak sa boroom kër yéenay ànd ñëw bu ci man nga doog a fay loolu macha allah dañu koy def yàlla dimbali nañu ci ñetti fan lañ la koy liggéeyal nga am borom kër waaw nga am borom kër bu ma la ko ci jublale ma la koy liggéeyal ci ñetti fan la nga am borom kër boo nga am sa boroom kër nga doog a jubli ci man nga doog maa fay liggéey bi noonu la jërëjëf acca ñu dox ba léegi wél jàll ci beneen ponk waaye dinaa ñëw ci ñi nga xam ne dañu bëgg lii di doom donte dafa jafe nag bëgg naa ñu dellusiwaat ci wàllum am doom ci wàllum am doom nit ki balaa nga koy defal doom da ngay xool biddéewam nga xool lan moo indi gàkk-gàkk yi mm-hmm. bu dee ci ku góor ki mm-hmm. wala ku jigéen kii la mm-hmm. wala nit ki xam nga mun nga ngelaw seydaane mun na dugg ci yow ngay am di nga di nga nekk ci diggante waaye dafay yàqu nit mun nga nekk ci diggante ni yow balaa nga koy yëg mu yàqu ah. loolu ah. ngelaw seydaane mun na dugg ci yow nga ti bu duggee ci yow dafa lay xeex wala nga am rawaxaan bu sokor mu lay xeex wala nga nekk jigéen bu am àndandoo mu lay xeex mun na nekk ci yow mun na nekk ci góor ki moo waral balaa nga ci liggéeyal kenn si ñoom foog nga xool nga xam fan la nekk la ci ñoom la ci kabaar yi la nekk ci moom nga dindi ko loolu noonu bu ma jëflee ci yow bu ma xool ma xam ne ci kan la ci yéen la dama lay liggéeyal boog nga nekk ci diggante nga xaaj nga jox ma xaaj bi boo demee ba nga am doom. Ah. nga mottali lu des. macha waaw ah, man noonu lay liggéeyee. acca mm-hmm. mënuñoo waxtaan ba pare te ñëwuñu ci seet ndax euh, wax nga ko sa biiri wax euh, ñu bëri laata ñu leen di defal yenn il faut ñu seetal leen wala defal leen saxaar comme ni ko Olof Njaay di waxee wala niirlu ñëwal ma ci seet bi nga xam ne yéen a ngi koy def. waaw seet ci takkandoor mooy mbéelu mbéelu mbéelu nit. Ah. mbéelu mooy takkandeer. booy dox ci naaj luy nekk sa wet boo doxee mu dox boo taxawee mu taxaw mooy takkandeer mbéelu ci loolu la ñuy xoole sa seet bu ñu dafa am waxtu bu ñu koy kool su ma la seetalee dinaa xam lépp bu dee asamaan mu ngi lay tiim lépp li la tiimaale dinaa la ko wax sa jafe-jafe luy ñëw ci yow lu jàll lu lay daj sa wërsëg fu mu toll sa biddéew bu dee xam nga nit sa biddéew mun na teggi sa wërsëg. mu nekk ci lëndëm. Mhm. wër boobaa sa am am dafay jafe. dinaa la wax sa biddéew dafa teggi sa wërsëg moo tax sa gàllankoor bari nga am nga ñàkk sa biddéew moo teggi sa wërsëg. dinaa la wax lépp lu nekk gàllankoor yi. Mhm. bu dee mun naa la ko fajal. ma jox la app ma fajal la ko. munu ma la ko fajal. Mhm. ma ne la demal ci diw moo la koy fajal. ma tegtal la sëriñ bi la koy fajal. jërëjëf euh, Cherif euh, Abdoul Sow jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo ak laata ñuy fa ñuy jeexale nag bokk na ci xew-xewu jamono mu di actualité du fekkee ne amut euh, leneen loo xam ne bëgg nga leen ko dollil laata ñuy dugg ci politique loolu bëgg am loo xam ne bëgg nga koo baaxee gaay wala am loo leen ci yokkal. Eh, alhamdulilah wàllum sëriñ. ak taalibe. yaakaar dafa fort. doomu aadama su amee ci yow yaakaar mhm. da nga war a fekkee yaakaar bu mu yaakaar ci yow bi mhm. yaakaar bi na am yàlla mooy motal mhm. moom mooy nangu ñaan waaye foog nga jëf li mu ci soxla li dafa am ay bunt yu mu lay jaarlu dafa am ay bunt yu mu ci dogal foog nga def bunt yooyu waaye nit ki mënu la jox alalam. mu tëdd xëcc mbajam tëdd nelaw nga xëcc sa mbajju nga tëdd nelaw nga ne ñaani na nangu mënul ànd boo nekkee ñaankat. Mhm. nga nekk sëriñ da nangu wet dangay ngay nangoo ñàkk nelaw say nelaw day day du bari li ngay li ngay waxtaan bu mu bëri mhm. bul nekk nit kuy waxtaan saa yu nekk na nga nangoo wéet ak sa bopp di mhm. wéet ak yàlla nangu liggéey di dugg ci àll gis nga garab bu ñu ko jëndee du am barke garab dafa am lu muy laaj boo koy dindi dafa am lu mu lay laaj lu mu lay laaj li loolu foofu foog nga def ko boo buggee am njëriñ bi foog nga def ko donc foog da ngay dem nga génne garab bi boo koy dindi ci boo koy boo koy dindi dafa am dafa am loo koy jëndee dafa am sarax yu mu lay laaj dafa am loo koy neexal dafa am ay bis dafa am ay waxtu dafa am yëre xay yëre yi ngay sol loolu noonu nag munoo dem tan jënd garab dajoo coono boobu yëpp nekkal boobu yëpp dafa ko ci garab nga naan garab bii na nangu déedéet du nangu ñun ay pël lañ suñu maam day taxaw wax ak garab mu tontu lii kese lañu xam ci lii lañu judd ci lañu màgg moo waral bugguñu ku koy yàq boo gisee tey ngeen ñëw ñuy waxtaan ak yéen ñuy wax ñi dañoo bari nit nag sa tool doo bugg doo bugg kenn ku yàq sa tool sa tool da koy samal sa bopp tool moo waral dañu koy bugg a defaraat jokkaat ko géddam tegaat ko fu mu nekkoon nit ñi bañ a ci def ay théâtre bañ a ci caakaan bañ a ko yàq ngati ñun moom mu nekk suñ tool waral lii jërëjëf euh, Cherif Abdoul Sow fa ñuy jeexale bokk na ci xew-xewu jamono suñu mbokki xalpulaar yi ku leen xam xam ne am na lu leen yàlla may ci wàllum fal nit Euh, ñu ngi ci campagne bi li ci des bëreetut 19 candidats la ñu am waaye nag dafay mel ni ñaari nit rek lañ ñu di sible fi mu ne nii gars yi bëggoon ñoo xam cinquième président bi sëñ bi. waaw ci wàlluma fal nit nit ci li nga koy samp li nga gis dugub dina sax ci kaw karab nga gis xay ci wàllum ci. Mhm. boo génn ci buntu kër nii tan nga fekk dugub mu ngi sax foofu kenn biyu ko foofu kenn kiiwu ko foofu mhm. ci loolu lañ lay samp waaye noonu lii yàlla dogal uh-huh. dogal na ko ci Amadou bu pare li yàlla dogal uh-huh. dogal na ko ci Amadou bu pare léegi joomaay nag ak ñoom dëcceeg déet man li mu gis tan lay wax li yàlla dogal uh-huh. dogal na ko ci Amadou bu pare moom moo koy nekk yàlla dogal na ko ci moom bu pare ah incha allahu rabbi nga ñëwaat fii ñu toggaat ci ñu waxaat ah, incha allah nga sóoraale ma yóbbu la du am ah. ngati du du man may wax balaa may wax damay am ci lu leer aha waaw kon bala nga tàggatoo incha allahu rabbi jara ngeen jëf uh, mm-hmm. yàlla na yàlla def ubbeeku yàlla sàmm yàlla mooy baaxal yàlla na yàlla baaxal lépp yàlla mooy defar mm-hmm. yàlla na defar lépp ñu ngi ñaan ci barkeem barke ñu baax ñi yàlla nañu yàlla teg ci yoon bu jàmm yàlla sàmm réel ci li ngeen di def ngeen am ci lu ëpp seen njort nit lépp looy def ci àddina ñaan ci nga am ci lu ëpp seen njort